yaa ngi noonu ci diggi géew bi am na lu muy def ci diggi géew bi moom Siteu am na ñaar ñu mu àndal am na mbuus bu xonk bu mu yor gas na suul na ko moom Siteu nga koy suul. ngay sotti ndox ci tànk ya Papa Sow daa dugg ba génn Siteu dugg te làmb ji Papa saw Siteu luñ doon waaj ay at di ko waaj ay weer ñoo ngay tase ñoom ñaar ñoo ngay tase Siteu ngay dem ci Papa Sow Siteu ngay dem ci Papa Sow am na benn xaatim gu mu ko tàllal déggal ma ambiance cey lamb Franc ngay bàkk génnaat na Bécaye Papa Sow numéro dem na ba dellu si waat Bécaye Papa Sow Bécaye Papa Sow numéro 2 daw na jël ko waa daanagu ko Bécaye Papa Sow da koy daan daan na ko daan na Papa lu arbitre wax lu arbitre bi di wax daan na Papa Sow numéro 2 waaw waaw Bécaye daan na Papa ca Ndella Petit Lo jël na ko plaqué na ko plaqué na ko da koy delloo na ko nu mu koy def da koy yeno wala lan na ko daan na ko Petit daan na ko Petit Lo daan na ko Petit daan na ko non fii lañ bëgg a touché. mais digg ngeen touché taamu ci biir ba noppi génnaat. Ah? non non taamu ñu si biir de. stade bi moo xat. te fii duñ fa touche. lamb ji nga yaakaar tuutiwul. daa tuuti fii nag. mais nag ah, stade bi moom macha allah. Ah. waaw naka nga gisee Siteu tey. Siteu confiance ba lay gañ. barbaar bi gañ li ma gis si moom nii gëj naa gis si moom. waaw gëj naa nga gis contre ko waaw. naka nga gisee Papa waaw mu ngi si farma rek mais na ñëw rek daanu dem ñibbi. tey làmb mérite wul sax Papa Sow am ndam. da nga wax ban fan su Papa gis ci bi. làmb buñ koy wax mobilisation. mais fan su Papa Sow ñoo ngi ci stade bi. mais làmb buñ koy moo tax tey xam nga ne Siteu moo fi indi lii yëpp. comprendre nga. yaakaar la ñun dañ far mën ñu analyser Siteu la ñuy ñaanal yàlla may ka sa digganteeg euh, Lagos loo ci wax. si yéegi si yoon. yéegi ni si yoon moom traîner non pas xeeb. Lagos mu def si làmb def ma waa lagi comprendre arbitre bi sifflé waat na te diggante la Sandé ak Trompeur la Sandé ak Trompeur

xale yi seen combat bi yàgg na Lassane ne fan ko yegg trompo fa mu jàpp baax na bàyyiwaat na ko Lassane ne koy zongale dina ca génnam déet daan na ko daan na ko Lassane daan na ko waaw daanagu ko Lassane daan na trompeur zongale na ko bës na ko ba mu tëdd bës na ko ba mu tëdd Lassane am na lu muy wax baaraam ba kaas Gora Sock lu muy def nii Gora Sock lu muy def nii génn boo jëm. ban tas ba nga gis ba nga dégg. bu jeexee bu jeexee donc. boo mel noonu rafetul xoolal ma lii ma Papa Sow dara ji bari na jëlal Siteu Adama moo sax wax ah, ah. c'est triste quoi c'est triste combat boo xamante ne mën trois ans ñu wàcc ba toll ba fii lu ndaw bu ko yàq non nekkatul lu ndaw parce que bu papa demee ba gaañu nekkatul lu ndaw ah, donc je pense que tey encore une fois lamb wanewaat na xar kanam bu nga xam ne honoré wu ko Euh, je ne sais pas quoi dire mais dama je suis triste parce que combat bi yàgg nañ ko waajal ñaari mbër yëpp bu ñu sañoon tey bëree tàggalikoo promoteur bi bu sañoon tey làmb ji jeex ku nekk dem sa yoon mais c'est dommage que xew nii moom euh, njort naa ne làmb ji yàqu na. mais na xam nga ku ñuy jiiñ dem doo soccoo yee liir donc nit. bul bañ ñu yàkkal la ci baaru gaalu xaj mais bu ñu la ca fekk ngay lekk ñëpp dañu indexé lamb ni lamb sport bi ay ay nit ñu violent ñoo fa nekk ñuy wax toujours violence toujours violence donc tey bu ñu ñëwee lu mel ni am euh, deru làmb mooy gàkk encore une fois lañ doon teg ci suñu kaw dañ koy dañ koy mérité donc euh, encore une fois c'est c'est mais dans l'organisation aussi am na ay mbir yi nga xam ne waroon nañ ko gën a fàggandiku parce que fi Papa jaar Euh, ba lii am pour man warul woon jaar foofu ndax foofu fa la batterie batterie Siteu nekk supporteru Siteu yi fa la ñu gën a bare donc bu fekkee ni dem na traversé foofu problème mën na am c'est domage que foofu lañ ko xàllal foofu lañ ko wax fa la war a jaar mais dans l'organisation warul woon jaar foofu. Euh, waa xam nga bi ñu tabaxee arène nationale ñu bari dañoo wax ne niñ ko configuré waa làmb mérité ko lamb ay ay ay ay ay ay lañ ñu war a defal ñu ciy toog donc tey ñu doon wax loolu am nañu raison ci axlu làmb parce que à chaque fois ku mer ak ku kontaan na yam sa premier réflexe mooy dajji chaise yi donc kon ñu defal ñu ab dër ñu ciy toog sax moom moo gën ci ñun parce que vraiment ku nekk aussi euh, war na def prise de conscience nit ki bu fekkee ni da nga bëgg benn sport nga ci yëngatu say ñañ di ci yëngatu nga am ci mbër li la war mooy gunge mbër mi ci jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj mais encore une fois li gàkkal na deru làmb rafetul li ñuy def aussi c'est vraiment dommage. Moi, j'ai le cœur meurtri. Je suis triste pour la lutte. Et j'ai même envie de laisser tomber la lutte et d'aller faire autre chose. Parce que tey lamb vraiment li ñu wane rafetul daal xar kanam bi rafetul. Euh, li ma gis ci deret mu jénn si moom mm, à mon avis mënul bëre maintenant tout dépend de l'avis médical moom lu mu bëgg a jéngu-jéngu bu ko médecin yi ausculté xool ko xam ne warul bëre bu ñu ko nee bul mënu ci dara du bëre donc le combat sera renvoyé et le CNG est mis devant ses responsabilités ñoom ñooy xool lan moo xew en fonction des rapports yi ñu jot ak ñoom li nga xam ni gis nañu ko ñu jël seen ay mesures mais ce qui est sûr et certain man su doon maa yor papa du bëre. non xam nga Siteu deful dara Papa Sow. Papa Sow deful dara sita donc li ci des mooy kan moo indi problème bi te loolu la ñu war a analyser je pense que mbër yi ci seen biir amuñu problème Siteu ak Papa ay naatangoo la ñu war nañu mën a bëre Papa même bu mayee chance Siteu parce que moo ko jiitu ci làmb war na ko ko may parce que Siteu dafa wane lu tax mu war a bëre ak Papa Sow sur le plan purement sportif y a rien à dire. ñaari mbër yi bu ñu sañoon ñoom ñaar ñu tëj barrière bi arbitre bi siffle ñoom ñaar ñu ñu ñu ñu ñu bëre mais tey li xew vraiment c'est désolant encore une fois et c'est regrettable. c'est un signal fort pour tous les grands combats. arène bi ni mu bindoo tëgg fi yenn làmb yi ñëw ci sax jaay sa bakkan la. préféré leen toog seen kër nga bañ a ngeen bañ a génn parce que lamb am. Uh-huh. image boobu message boobu c' est désolant. Uh-huh. bu fekkente ni loolu la ñuy loolu la ñuy daw si ta si tali bi. Uh-huh. ñu ñëw si biir enceinte bi ñu fa gis vraiment il faut que CNG. ba pare l' état au plus haut ñu xool nan la ñu mën a jàppalee lamb. xool bu événement de lutte amee ñi xool nan la ñuy jëlee tout toutes les forces de sécuriser l'événement pendant après et avant loolu mooy solution sinon der lamb day yàqu. boobu ay lamb ak suñu kanam diggante Balla Gaye Bombardier Modou Lo Ama Baldé ndax tamit nekk mais li ma wax moom mooy ñu limiter le public. public bi même bu dee dañuy yokk billets yi. ñu limiter le public pour que mu bañ a am débordement. Hmm. parce que Modou Lo Ama Baldé la crainte était là ñu bëree ne yoon combat boobu xeju fi lan moo taxoon ñu wax ko est parce que dañu xam ni Ama fii la dëkk ñu xam ne Modou Lo am na mbooloo ñoom ñaar bu ñu ñëwee dañuy am débordement bu débordement amee kenn mënatu ko sécuriser parce que public bi mooy ab force on va on va se décourager que que lamb violence kese la te loolu arrangé wuñu il faut qu'il y des états généraux de la lutte ñu mën a xam lan la ñuy organiser les événements de lutte mu bañ a am li yàqute parce que li désolation la on est vraiment désolé mais lu am fii nii c'est quand même. naa ci yow. Papa Sow a ngi noonu di xataraay ne day bëre ñoo ko jàpp Papa làmb lamb ja yàqu waaye mënut a dégg loolu Papa Sow lambam na waaye nanguut a dégg loolu Papa Sow ngay xataraayu nee na day bëre. Papa a ngi noonu di wër géew bi Papa a ngi làmb ja yàqu na làmb ja yàqu na Siteu noonu ci digg géew bi Siteu ngi wane ne pare naa Ibou Nakafu picc ya Siteu ngay sotti picc ya waaye bu ñu naawee xaw ma fan lañu jëm. Siteu daw. Siteu ngi noonu ci diggi géew bi ñoo koy sotti butéel ya ñoo ngi koy sotti butéel ya su taangi noonu su tàngook waaye Papa a ngi duggaat ci digg géew bi Papa day miir Papa day miir. Papa ngay miir Papa Sow day miir xoolal ma Papa Sow médecin bi nga koy laaj waaye Papa a ngi noonu am lu ma naqari trop di am naqar gu rëy rëy rëy ci lii nga xamante ne moo xew tey lamb Sénégal fu mu war a jógee xoolal ma ni nit ñi ne plus de vingt cinq mille personnes nekk ci lamb ji di xaar ñaari mbër pendant deux ans ñu ñëw tey lii am métti na ku ne après nag dogal yàlla yàllaa ko def yàlla ko nangam non c'est pas ça waa ji ko def dañ ko war a xam mënul ñàkk gis nañ ko kooku dañ ko war a fekk fu nekk jàpp ko dem jébbal ko yoon parce que dafa tas yaakaaru Sénégal yëpp ku nekk mën na comprendre jam nañ supporter bi jam nañ ba tax mais mbër buy bëree war a sëgg ci làmb ji bëree ñu ñu jox ko blessure avant le combat mais naka la bëree mën a amee Papa mën na bëgg a bëree mën na bëgg a xaru pour bëree mais ay mbokkam duñ ko bàyyi mu bëree. man ah ah non jamais Papa Sow dong moo nangoo bëree moo bëgg a d' accord a bëree mais amul kenn ku d'accord bu mu bëre. mais c'est pas c'est pas la première mu tax mais. mais barki Demba Ndiaye mais à ne pas finir. léegi même bi am na yu gën a garaaw yooyu ñu war ko wax suñu stade bi des na tuuti ñu mabal ko benn yoon bu jeex. slogan de quoi. parce que moom lañ leen di ñu il faut quand même ces ces ñu jàpp leen yóbbu leen juge en flagrant deli amul kenn ku ñemee ci ñoom dem assemblée nationale di ko di ko toj maa ngi koy rajaxe kon doo ko defati même chose la assemblée nationale Sénégal ko moom yow yaa ko moom man maa ko moom Papa ko moom Siteu moo ko moom. arène nationale bi même chose la képp koy yàq les biens de l' état di ko détruire force de l'ordre dañ la war a jàpp yóbbu la jébbal la procureur mu atte la bu ñu at ñu fi jàpp ñëpp dañu leen a ah. mais bu ñu bu ñu attee nit pour la première fois atte leen ne te nañ leen nangami at wala nangami weer. dootoo gisul koo defati. mais est-ce que papa dégg dañuy dégg fu làmb fi mu ne waa Fass dañuy yàq làmb. waa Fass dañuy yàq moom musul am ci kër àdduna non non Fass musuñu yàq làmb. mais musul am ci kër àdduna man de toute ma carrière et toute la carrière des autres Fass musuñu dem ci du ko yàq. le dañoo dellu ginnaaw di discipliné ba faf gars yi yéeg suñu kaw. mais question Fass ba Guédiawaye sax ñëpp suñu doom lañu rek. ñëpp njaboot gi la. Papa nekkul Fass. ne day bëri yow loolu. non Papa Sow bu dee dee bëree man su doon dama koy déggal maa ko non doo bëri parce que munoo bëri. kon gisee ñàkk boo waral mu dem fi nga xam ne xam nga xam nga boo ki nekkee daf ci am benn moment nga bëgg a dem rencontrer sa adversaire dafa am moment nga bëgg a def sa benn show show boobu nag bu tombee ak ñoo xamante ne ils sont mal intentionnés yu mel ne du ci am et ça s'est passé comme sa c'est vraiment dommage et dañ koy di wax ne lii vraiment ñëpp dañ ko war a météo bi yéen nag am liggéey bu rëy pour sensibiliser nit ñi jërëjëf. ci digg géew bi mais mënul bëree Papa Sow mënul bëree. Siteu noonu di def ambiance. saraxe nga yëkkati ndënd ñëw dóor ko ko. lim def nag dina ko dina ko fay moom ba wis ko. seen ñoom ñoo xam li ñuy def. mais moom mi xaañ mbëri moom dina ko fay moom ba wis lii la ñuy def dem xoolal ma lii xoolal ma ñii la Siteu a ngi noonu arbitre baa ngi wax ak Siteu baa ngi wis si digg géew bi su taa ngi noonu Tata ngi ci ay déeba déebam. da ngeen di wër ci biir nit ñi. réussir nga ko yàgg na nga koy on ko naa ko barki na tey nit ñi lay ci am nag suñu borom gis nga dogal na ko ci tey nan nga jàngati jàngatuma ko nenn lu jul sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin laay wax li ma war def naa ko du ma tiit duma ragal du ma tappet te gor laa ci dëkk bi laa dëkk tekki fii te di fi def teraanga fu ma neex laay daagu bokk ci famille bu baax di noobul it teg ci. képp ku fi def sa yëfu baadoola ak sa yëf luñ lay xeebe kooku yow la engagé. du dëgg ay millions laa jël fay ko. du dëgg organiser def ci coono sonal leen yéen ameel leen ak. ameel ko amateur ameel ko suma sponsor ameel ko waa diaspora bi ameel ko ñëpp kon man gàcce ngalaama wàcc naa. dëgg la keneen nag koo xam ni yàlla def nañu yare la neneen nga mel neneen di doxale neneen kooku yow la engagé le reste j'ai pas de mot à dire parce que le dernier mot ne me revient pas. lamb soxla na ko ak fii lamb toll jafe-jafe yi. Euh, Cheikh Mouhamed Fadal da ngay doon sama sëriñ. maamin hmm. am na question yoo xam ne du ma ko bëgg ñu di ma ko laaj. Hmm. d'accord parce que man damay tàng. non dama lay wax non dama ni du question du ma tàng man nit laa. Hmm. après lii dafa neexul dafa naqari. mais boo ma nee ay lii. ndax lamb soxlaw na ko. yow yaa ma gën a xam ni image yu mel nii. mbindeef soxlaw ko di ko gis. parce que dañoo yor njaboot. gis nga doomu aadama. bu ñu demee ba jël ci ay nit. ci 17 millions sénégalais nommé leen. defe naa ni leneen lañ doon xaar métu li ñu image yi ñu gis tey. ku la dégg xam ne xool ngay waxee lu tàngal mais nañu des ak seen ñàkk teggin ak ñàkk ngor. d'accord dama ni. tu me Waalo xol laay waxee. mais man nit laa. damay am lu ma naqari. damay sant yàlla. ba ma nit ñëpp xamee. mais ku xam Pape Abdou Fall xam ko bu baax. dee moom a gënal dund. mais comme sama yoon newu man du ma juge. du ma àttekat du ma police du ma gendarmerie. du ma CNG. li ma war mooy. wàccoo naag ñoom wàccoo naag amateurs yi. wàccoo naa ak journalistes yi. wàccoo naag téléspectateurs yi lamb ji di woon direct. amee dama ko def direct à la dernière minute pour bëgg lu neex Sénégal. mais gàcce laa mujjee. comme combat bi àggul en tant que promoteur après lu mën a xaar. loolu sama yoon newu ci. yaa tëgg la dama koo dégg dama ko dégg. waaw dama ni. maa ngi toog di déglu ñi nga xam ni ñoo yor làmb ñoo koy gére bu ñu xasee ba jël décision. danaa leen woowaat toog waxtaan ak yéen. merci li la war lépp def ko. non non du gàcce man aw ma gàcce déggoo ma de. waxin laa la wax. dama ni Sénégal tey gàcce moo fi am. def nañ li ñu doon def. mais xaaruñu woon ci làmb ju ñu pousse ñaari at. troisième année bi. ñu ñëw dañu tegal plateau bii. mais tey dañ ne organisation bi. loolu du suñu devoir ñun man def naa ak yéen loo xam ni du sax sama wàll. def naa ak ñeneen loo xam ne du sax sama wàll pour parfaire mais dafa am loo xam ne liggéeyu CNG la man du sama liggéey. sama yoon newul ci loolu bu ma dugal man wax def loolu kañ bu mu la naqari mani yow Abdou Fall moom kenn du ko jam naa ni.